الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أيها المشاهدون الكرام لتلفزيون سفينة تي في أخوكم وصديقكم إمام أبو بكر مبوي يسلم عليكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokki téléspectateur yu Safina TV بوكو mbokk seen xarit imam بكر Mbodj moo ñëw ak yéen ci seen émission makarimul axlaaq di leen nuyu di leen ziyaar di leen balu xàq yitam ci weeru koor wi ñu génn di leen bal xàq di ñaan borom bi tabaaraka taala lépp luñ ci woor walla ñu jaamu ko ci yàlla ci beneen façon wala ñu ñaan ko ci yal na ko yàlla nangu te ful ko te sotti ko ci réew mi di leen nuyu yéen ñépp nag di ñaan borom bi tabaaraka taala yal nañu defal maanaam dégg ak topp bu ko defee suñ émission tey ña ngi koy def ci résultat wu koor ndax borom bi tabaaraka taala moo ñu wax ci téereem bu tedd bi baada audu billahi min alsheytaani arrajim ne yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun borom bi tabarako wa taala wax ñu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu ndax bu ngeen ko defee ni ma leen ko sante ngeen mën ci jële ragal yàlla kon résultat koor mooy ragal yàlla ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam wax ci ne nit ñi nit day du mën a àgg mukk ci kuréelu ñi ragal yàlla li feeg demul ba nga xam ne li dagan ci moom rafet nga xam ne bu ko defee du ci am benn bàkkaar li feeg bàyyiwul loola ngir bañ a àgg ci li nga xam ne yàlla da ko xaraamal li feeg daal li nga xam ne may nañ la ko bàyyiwoo ko ngir bañ a àgg ci liñ la mayul booba yow àgg goo ci dëgg-dëgg ragal yàlla bu ko defee rekk ñu xam ne daal li nga xam ne mooy li ñu doon jublu ci weeru koor nga xam ne mooy alxaayatul manchuuda min alsiyaam hiya at taqwa li nga xam ne bu fekkonte ne dañ ko doon diir ci weeru koor pour jam ko mooy taqwallahi mooy ragal yàlla kon il faut ñu xam ne comme woor nañ weer wi bëccëg yépp woor nañ ko guddi yi ñu taxawe ko ci ay naafila kon nag war nañoo xool wala ñu laaj suñu bopp ndax bon àgg nañ ci li ñu ci doon wut muy ragal yàlla kon kenn ku nekk ci ñi doon woor dana poser question boppam bu demee ba weer wi jeex ne waaw man ndax réussir na ci koor gi bu doon ab examen wala boog dama échec ndax boog école bi nga xam ne mooy école koor bi nga xam ne dama ci doon def formation ndax bi formation bi jeexee dama bokk ci ñi nga xam ne maanaam ñoom jàll nañ ci formation bi wala boog dama bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a tiye Beaucoup de faits comme il faut nga poser question ne waaw comme ragal yalla moy tax ñu xam échoué nañ wala admis nañ kon lan moy ragal yalla pour ma ma mën xam bon fan lay nan lay natte sama bop bu ko defee dañuy wax né ragal yalla day dafa am ben dayo bo xamné mooy dayo bi ci gën a néew nga xam ne boo ca àggee mën nga jàpp ne yow mii kat li nga doon wut ci weeru koor wi am nga ko muy ragal yàlla waaye nag am na dayo boo xam ne moo gën a kawe nga xam ne du ñépp ñoo cay mën a àgg ñu laaj waaw dayo bu ndaw bi mooy lan ñu ne adaa u maftarada allahu taala ala abdi wa tarku ma xarama mu ne mooy lépp loo xam ne yàlla faratal na ko ci yow moo xam julli la moo xam koor la moo xam azaka la moo xam aj màkka la moo xam say jëfante ci ak doomu aadama yi yooyu yépp nga xam ne yàlla dala koo sant bu fekkente ne yaa ngi koy jooxe li nga xamne mom la yàlla haramal ci yow mo xam ay jëf lañ mo xam ay melokan lañ nga bàyyi yépp koku day boko défé rek man nga jàpp ne ragal nga yàlla omar ibn abdul aziz radiallahu anhuma dafa wax ne laysa taqwallahi bi siyaami nahaar wala bi qiyaami leyl والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله تعالى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله من فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير عمر بن عبد العزيز موي ku baax dafa wax ne ragal yàlla daal bi ñuy wax ne danga koy jëlee ci koor nga danga bëccëg yi la guddi yi wala boog nga jaxase leen ñoom ñaar di naafila di woor mu ne ragal yàlla kat mooy lépp lu yàlla xaraamal ci yow nga bàyyi ko waaye lépp lu mu faratal ci yow nga jooxe ko nee na képp koo xam ne nag yàlla wër wërsëgane la loolu ba yow lépp lu yàlla santaane nga nekk ci lum tere nga bàyyi ko nee na leneen loo ca tegatee rek na nga xam ne loola bénéfice la muy alal ak xam-xam ak njaboot ak ay kër yu rafet ak ay oto yu bare ak yooyu yépp boo xasee ba am ragal yàlla teg ko ci na nga xam ne yow kët dañ laa buuñaa dañ laa wis waaye nag boo amee yiite amoo ragal yàlla na nga jàpp ne amoo dara الحسن البصري رضي الله عنه موم دافنا المتقون تقوا ما حرم الله عليهم وادوا ما افترض الله عليهم من ني راغال يالا دال نيوم نيوم نيو نيغا خامني لي يالا داغانال سي نيوم مانام لب لي يالا ارامال سي نيوم مويتو نانكو باكو دونكو صاح جيغي دولين فاسين waye lepp lu len yaral faratal moy lim len sant ñanga ca guddeeg bëccëg abu hurayra radiyallahu anhu moy sahabi bo boo ne ku takko won ak yonent bi la sallallahu alaihi wa sallam ku bari lu mu solo ci ay hadith la danaka man nañoo wax ne mu upp lu mu solo ci ay hadith ci yonent bi la sallallahu alaihi wa sallam dem nañ ba wax ne solo na cinq mille cinq cent soixante quinze hadis moom day dañ ko laaj ne ko waaw Abu Hurayra comme yow nii nga jege woon yonent bi yow buñ la laajee ragal yàlla lan nga ñuy wax mu ne waaw ki koy laaj mu ne ko ndaw waaw ndax mas nga jaar ci yoon woo xam ne dafa bari ay dég dég am nañu ko xamul dañ koy joxe exemple ne yoon woo xam ne daal dañ faa tojat ay xotti biteel ci yoon wi mu ne waawaw mu ne ko waaw ba nga fa bëggee jaar noo def mu ne ko ah damay def saa yu ma gisee benn dëkk walla benn xottu biteel ma yëkkati ko teg fële door caa teg sama tànk foofa walla boog ma jéggi ko walla boog ma moytu ko bàyyi yoon wa xottu biteel ba ne jaar ci weneen yoon mu ne loolu mooy ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy lépp lu la yàlla tere rek nga fexe ba dindi teg fee door a jaar wala nga moytu ko loolu nga def ba mucc ci xottu biteel ba noona ngay def ba mucc ci lépp lu yàlla xaraamal bu ko defee nee na loolu moom li abu hurayrata jublu ci loolu mooy ne moytu lépp lu yàlla xaramal ci yow boo ko xasee ba def rekk mooy danga def lim la sant ndax ñàkk a def li la yàlla sant loolu dafa xaram moo la xaram lu deme ne naan sàngara fen kart rambaaj njaaloo noonu nga koy moytoo noonu ngay moytoo waxtu julli jot nga lànk bañ koo def am alal war koo génn azaka nga lànk bañ koo def yooyu na ngay moytoo lale noonu ngay moytoo ñàkk def yi moo tax rek mu ne moom maanaam ragal yàlla mooy moytu lépp lu yàlla xaraamal ci yow bu ko defee kon bàyyi li mu tere def lim santaane day duggaat foofu kon ñu ne kon lan mooy daraja bi nga xam ne nag mooy daraja bu mag bi ci ragal yàlla ndax loolu ñu fi wax lépp mooy ragal yàlla bi nga xam ne moom boo ko defee rek ñu ne àggagoo ci niveau bu mag bi de waaye nag teewul dañ lay boole ci ñi ragal yàlla ñu ne waaw kon lan mooy daraja ju rëy nga xam ne kii nag bu ko nit ragalee yàlla ñu xam ne ragal na yàlla piir ñune ne loolu mooy li yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun li yàlla wax ne yéen ñi gëm na ngeen ragal na ngeen ma ragal ni nga xam ne noonu laa ko mérité ni ma ko yeyoo na ngeen ma ragale noonu te na ngeen fexe ba bu leen dee mukk te nekku leen ay jullit ndax dee te nekkoo ab jullit kat erreur la te danger bu mag la mu ne nag na ngeen ma ragal ni ma yayoo ñu ragal ma ñu ne waaw ah ibnu mas'ud radiyallahu anhu muy saxaaba yonent bi moom it bu mag ku daan jàngal yonent bi alxuraan ci kanamam la moom buñ ko laajee mooy mu ne aaya bii day mooy yàlla dañ koo war a topp te bañ koo moy di ko fàttaliku foo toll looy bëgg a def rekk mel ne yàlla dafa taxaw ci sa jëmm ji boo dee jaamu yàlla mel ne yàllaa ngi nii taxaw ci sa kanam comme nit ñaa ne ubudullah ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak nga xam ne looy def rek day mel ne yàlla moo naan la defal nga def bàyyil nga bàyyi taxaw ci say nopp rekk ak ci sa xef nga xam ne doo ci sàggan mukk mu ne nga di ko sant nag ci lépp loo xam ne def na ko mu dogal ko rekk loola nga gërëm ko nangu ko mooy at tas taslimu bil qadaa wa sabr alal balaa lépp lum def nga d'accord te doo ko weddi mukk doone um bu ko defee ñu ne ah loolu nag boo ko waxee dana am ñu la laaj ne la waaw ndax loolu nit moom mat na ko lu yàlla def rekk nga gërëm lu mu nattu nga nangu di ko topp te doo ko mooy mukk lépp looy def nga di ko fàttaliku te doo ko fàtte mukk ñu ne loolu kët aaya bi nga xam ne moo koy firi mooy li yàlla wax mu ne wattaqullah mastataatum loolu ñu wax yàlla ne boo ko mënul kët waaye kon na nga ragal yàlla sa kemtalaayu kàttan def li nga man ba fi nga yem boo defee li nga man ba fi nga yem bu ko defee yàlla nangul la ne def nga xaqatuqaat yi ragal nga ko ni mu ware ñu ne taqwa boobu nga xam ne moom mooy taqwa bu mat bi sëkk xaafis ibnu rajab alxanbali rahmahullah yal na ko yàlla gërëm yërëm nee na daal mooy filul waajibaat wa tarkul mahrumaat wa shubuhaat mu ne loolu ragal yàlla googu daal mooy ngay jëf yi nga xam ne loolu la yàlla waral ci yow te bàyyi yi mu xaramal ci yow ak yi nga xam ne dañoo lënt nga xam ne ñii ne baax na ñii baaxul ñii ne ah dagan na ñii naan daganul ñii dañ koo sib mu ne loolu nag jëf li nga xam ne moom la yàlla waral ci yow danga koy jëf ba yi nga xam ne dañ koo sopp sax doo ci bàyyi dara waaw yi ñu sopp nga xam ne ay sunna la yu yonent bi daan def loo ci xam rek doo ko bàyyi lépp ngay def waxuma laak nag yi war waaye subuhaat yooyu maanaam yi nga xam ne dafa lënt moom itam da waxuma la yi lënt waaye yi nga xam ne dañ koo sib dong yépp ngay bàyyi lu demee ne li yonent bi sallallahu alayhi di tere ku lekk laaj bu ñorul di ñëw ci jàkkam nga xam ne daf ne ku lekk laaj bu ñorul dal jëru nga ñëw ci suñ jàkk ndax xeet gu naqari ga nga xam ne danga koy andil doomu aadama yi bu ko defé yow nga far ko ba bu ko defé nak lolu dal jab taqwa allah bi gëna mak abu darda mune ragal yàlla deug deug dal pour mu mat moy an yattaqillaahul an yattaqillaha al abdu xatta yattaqiihu min misqaali darratin wa xatta yatruka bada baaduma yara annahu xalaalun xasiyata an yakuna xaraaman mu ne dëgg dëggi ragal yàlla daal pour nga àgg ci mooy jaam bi ragal yàlla lu ba ragal ko ci lu tolloog sax atum feppu suuf lu toll noonu sax doo ko xeeb ci ragal yàlla nee na nga bàyyi yi nga xam ne dañu ne yu dagan lañ ngir ragala àgg ci yi nga xam ne dañ koo xaraamal kooku bu ko defee am na suñuy mag yoo xam ne magu réew mi nga xam ne kon euh, bu ñuy jël exemple mën nañoo jël ci ñoom ndax àggoon nañ ci bay ragal yàlla yooyu am na ci suñu réew mi ci mag ñi kenn koo xam ne maanaam mas na war fas ñëw ba ci benn tool fas wa rëcc ko dagg benn gub rekk benn ngooñu gerte lekk góor ga wàcc fas wa taxaw fa ba suba borom tool ba ñëw ne ko a ah! mu ne ko mën a diw mu ne ay waay góor gi looy def fi mu ne ko man ka dama ñëw ba fii sama fas wi ngalaab gi rëcc ma jël benn gerte ngooñu gerte lekk ko mu jàll a ah, te wax dëgg yàlla mënumaa dem mukk te ñewulo jéggal mako, wala nga wax ma ñaata la lay fay ma fay la ko doora dem xol xam nga ne lo ragal yalla la nga gis ko wax benen góor pour won la ne maanaam li dagan ngir baña ag ci la haram ñu jox ko butéelu boisson dijji jox ko mune man dey ah man de duma bitel buma sañul duma ko sañi di naan ndax xawma ku ko sol num ko solee nga xam ne nga xam ne boisson boo xam ne wax dëgg yàlla bu dagan la du alcool du dara hmm? nga xam ne jus de fruit la mu ne moom day du ko naan ndax wóoru ko naka lañ ko sole ak ka ko doon sol lu ci def loolu mooy nga bàyyi li dagan xam nga ne kooko du àgg mukk ci lu ñu naan dañ koo sib bu ko defee am na benn góor bi ma koy wax ci xut ba bu ma doon def ñu pare benn waay ñëw ne ma man de loolu danaa la ci jox exemple sama maam moom mësula lekk ganaar ma ne ko ah ganaar mu ne waaw parce que dafa wax ne ganaar day rendi ko dafa jafe kon comme gisuma fañ ko rendee ganaar ci boppam laay ba defe naa kooku day demul ti leen fa ñuy rendee ganaar yi nga xam ne gaa yi moom wallaay boo fa demee duutoo ñemee lekk ganaar ah ngeen baal ma yéen jaaykatu yi nekk tilleen exemple la waaye rek wiqaaya la parce que loolu ganaar yi nu ne lañ koy rendee waaw ku ne itam da koy rendi ñun kay na ñëw rek ñu suqi jox ñu defal ñu ci kees ñu lekk suñ yoon newul ci nuñ ko rendee xam nga loolu nag mooy raayatu at taqwa bu ko defee kon ragal yàlla nag boo ko defee ci boo jëlee ragal yàlla ci weeru koor dafa am ay signes yoo xam ne dana ku ko am rek na nga yëg ne yow mii kat ragal yàlla gi nga doon wut ci weeru koor yow am nga ko mooy ne gannaaw bu ñu wooree ba wori mu xool bi mu wooree ba mu jeex na mu meloon avant koor gi di ñëw bi ñu dawalee weer walla semaine mu gis ne fa mu tolloon bi daataan weer wi ñëw weesu na ko léegi ci ni muy joxe ay jaamu yàllam régularité maanaam di dem ca jàkka ja di julli ci mbooloo di jàng alxuraan ay sarxeem ay naafilam ay kooru gàtt ngam mu tàmbalee ci juróom benni fan yi nga xam ne ñoo nekk ci maanaam shawal nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku ko woor mel nga ne ku woor at mi ndax boo wooree weer wi ñu multiplier ko par 10 muy fukki fan 6 jours yi buñ ko multiplier par 10 mu nekk 60 nga xam ne kon mel na ne woor nga fukki weer ak ñaar tiyaabaam ngay am ak alximis ak altine yi léeg-léeg wala ayyaamul biit muy 13 14 quinze ci weer wu ne moom it day mel ne woor nga weer wi yépp loolu boo xoolee ne bi nga dawalee wari nañ nga continuer ci yooyu ah jàppal ne nag yow mii kat réussir nga formation bi nga doon def ci weeru koor ndax jële nga ci ragal yàlla waaye nag ki ci échec yi tam nag am na ay signes mooy képp koo xam ne dafa xool ne dañoo naan ndox rek mu dellu fam nekkoon maanaam ci caaxaan ci càggante ci léeg-léeg mu biddanti bu xëyul liggéeyi balaa yeewu 9 jot wala 10h parce que julli du tax muy dagg ay nelawam ah ya mu nekkoon daan seetaan te mu yoo xam ne lu xaram la mu commencé waat di ko seetaan moo xam ci YouTube bi moo xam fu ne la koy seetaane ak di ko déglu yooyu kët képp koo xam ne bi ñu wooree ba boori rek dangaa bàyyi la nga nekkoon lépp doon moytu lépp tàmbaliwaat na nga meloon avant koor ga ñooñu kët ñooñu kooku mooy ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax benn jour mu yéeg ci minbar bi naan amiin amiin amiin saxaaba yi jaaxle ne ko waaw yow yéeg a goo ñaan a sax commencé wax amiin mu ne bi ma yéeg ni Jibril dafa ñëw naan ma maanaam képp koo xam ne weeru koor ñëw na ba jeex te kenn jéggalu la sa bàkkaar yépp kooku de yal na ko yàlla soreel yërmandeem yal na ko yàlla soreel njéggalam neel amin moo tax ma ne amin yal nañ yàlla musal teñ bañ a bokk ca ñooña bu ko defee kon wax nañ la lan mooy taqwallah wax nañ la lan mooy siiñu ku ko koo xam ne réussir na ba am taqwa ak ki nga xam ne dafa échoué ci weeru kooram ki échoué nag na gaaw tuub jéem a soppiwaat delluwaat ca nam meloon ngir taqwallahi mu man koo am bu ko defee képp koo xam ne nag am na ragal yàlla yàlla nag dafa am loo xam ne maanaam xam nga def nga examen ba réussir ñu jox la diplôme maanaam daa di lay embauché embauchement boobu nag yan avantage la la ci yàllay defal bu ci njëkk mooy inna allaha yuhibbul muttaqin yow kat bokk nga léegi ci ñi yàlla bëgg ku yàlla bëgg maanaam nit koo sopp lépp lu ko neex rek danga koy bëgg lépp lu koy gaañ wala lu ko naqari danga ko koy soril mooy ku yàlla bëgg rekk daf lay yóbbu àjjana te daf lay yóbbu ca àjjana ya gën a kawe kon ragal yàlla benn boobu am nga ko ci ñaareel bi mooy ne yàlla nee na inna allaha ma'al muttaqiin yàlla ma ngi ànd ak ñi ko ragal nan lay àndeek ñoom mooy da lay defal ak njub dëgëral la sàmm la aar la defal la tawfiq lépp loo xam ne moom nga yëngu rekk wala nga koy jublu rek day fekk loo xam ne danga ca am ngërëmal yàlla mu amal la njariñ ci àdduna ak alaaxira ñetteel bi mooy dangay bokk ci wali yu yàlla yi bu ñee yàlla ñeen ñi daal di ne ah diw day niñ koy maanaam tudde nañ dañuy def naan sëriñ la wala boroom xam-xam la walla boog ci famille sàngam la bokk yàlla ne ah in awliyaauhu illa almuttaquun walakinna aktharuhum walakinna aktharahum laa yaclamuun ca suuratul anfaal aaya 34 mu ne ah loolu ngeen di natte ne ñooñu ñooy waliyu yàlla gaa yàlla yi du loolu de ñu ne waaw yàlla ñan ñooy waliyu yàlla mu ne ay awliyaa am samay gaay mooy ñi ma ragal nañu waxe woon sànq ñi ragal yàlla ku mel noona rek jàppal ne wàllu yu yàlla nga ak fo meuna bok ak no meuna mel ñentel bi mu ne ñi nga xamne dañu ragal yàlla ba am diplôme bobu fazu bi rahmatillah mu ne ñoom day am yërmane yàlla yàlla neena wa rahmati wasiat kulla shay'in fasa'aktubuha lil aktubuha yattaquna wa yu'tuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun mu ne sama yërmande nga xam ne yàlla nee na quatre cent la quatre vingt yëpp dama ko denc pour àllaaxira benn rek laa wàccee ci àdduna moom la ñuy séddoo te léeg nga gis ba koo xam ne dem day jégg dayoo muus mi nga gis buy ŋànk doomam sax du ko kii ganaar gi buy bóof ci kaw doomam xar ma na muy nàmpale doomam ku ko jege mu mbëkk la yërmande jooju nga xam ne nit ñeeg bàyyi ma yeeg picc yi yépp ñoo ko séddoo benn la ci yërmande yàlla ñu ne kon kat ñépp a ca xaj ñéppay am yërmande yàlla mu ne aa ah, waaye nag maa ngi koy jox ñi ma ragal di génnee azaka te itam sama aaya yi ñu jàng nga xam ne ku ko def am taqwallaahi buñ leen ko waxee ñu góor góor lu jéem ko ba am taqwallaa nee na ñooñu kat laay jox sama yërmande ëllëg ñu ne bokk na ci itam ne képp koo xam ne ragal nga yàlla yàlla dimbale la jàppale la moo tax mu ne bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi xamsati alafin min almalaika musawwamin na mu ko defale woon ahlu badr nga xam ne dañu nekkoon benn kuréel bu tuuti amuñu moyen amuñu matériel yéefar ya nekk mbooloo yu dul jeex bañ demee ba xeex ba tàmbali yàlla yónnee juróomi junniy malaaka yoo xam ne ñoo leen doon jàppale bu ko defee nga xam ne kon ki ragal yàlla yàlla da koy dimbale kon jullit yi bu ñu ragalee yàlla rek yàlla ànd ak ñoom bokk na ci juróom-benneel bi mooy ku ragal yàlla maanaam say ñaawteef yàlla da la koy jëggal te itam yubaddilullah sayyi'aatuhum xasanaat ndax mu ne wa yu yattaqillah yukaffir anhu sayyi'aat yi ku ma ragal say ñaawteef boo ko defee ma effacer la ko remplacer la ko ay jëf yu rafet kon nga gis ne itam boo ragaleel yàlla yàlla nee na dama lay defal furqaan mooy loo xam ne dafay détecté ñi ragal yàlla da ngay dem ba lépp loo tiim bu dee lu yàlla daganal da ngay yëg ne lii lu yàlla daganal la lii may jaamu yàlla nii la ko yàlla bëgge lii lu yàlla xaraamal la nga mën koo moytu moo tax bu ko defee te yàlla jéggal la say bàkkaar ñi ragal yàlla nag yàlla nee na ñooñu lay nangul lu ñu jëf innama yataqabbalu llah min al muttaqin yàlla ma ngi nangu jëfi ñi ko ragal ndax ñi nga xam ne bu ñu koy jëf dañ koy jëf sellal ko def ko ak ixlaas def ko ngir yàlla ñooñu kat lu ñu def yàlla nangu ko ñi nga xam ne ku ragal yàlla képp ku lay fexeel rek na la wóor ne noon bu lay fexeel moom na def attention te xam ne yàlla lay man aada lii waliyan faxat aadantuhu bil xarbi la yàlla wax sama waliyu te ñi ragal yàlla ñooy awliya am nee képp ku la song na la wóor ne mban la song te ku songoog yàlla danga jaaxaan danga nga daanu pexe mu ñu la pexeel itam dara la la dul wàññi ndax yàlla nga àndal moo tax yàlla ne bu fekkonte ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxnaa alayhim barakaat min alsama wal ard bu fekkonte ne nit ñépp dañoo jub gëm ma te ragal ma nee na danaa leen ubbil ay barke yu jóge ci asamaan ak suuf bu ko defee dal ñu xam ne ragal yàlla dal ku ko def yàlla nee na danaa la sëgale sax foo ko foogewul maanaam danaa la defal ak jàppandal ba lépp loo bëgg mu yomb la lépp lu lay lot sori la bu ko defee kon loolu moo doon ragal yàlla bi nga xam ne moom lañ doon wut ci weeru koor wax nañ leen lan mooy ragal yàlla pour ku nekk mën a natt sa bopp wone itam ni nga xam ne melokaan yi nga xam ne ku ko mel bi gannaaw koor gi jeexee jàpp nga ne la nga doon wut ci weeru koor am nga ko ak melokaan yi nga xam ne ku ko am jàppal ne yow mii kat koor gi maanaam rubba saa imin laysa lahu fi saw mi illal juwaata achage bokk nga ci ñi yonent bi ne bari na ku woor ba ngoon te ba weer wi jeex te amewu ca lu dul xiif ak mar yal na yàlla musal ci loolu bu ko defee lii moo doon seen émission makaarimul axlaaq ngeen àndoon ci ak seen xarit imaam Aboubacar Mbodj di nuyu suñu technicien bi muy Birane Mbaye ak sàmba si di nuyu suñu sëriñ Thierno Hamidou Yoroban di nuyu itam maanaam suñu directrice soxna ñu Maba ak mboolem suñu téléspectateur u Safina TV yépp di leen nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla yal nañ yàlla defal taqwallah wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu